daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax di ngeen am nga am taw tawfeex rek lañ ko may am ñoom ñu ngi fekk nekk nekk si ci xas yi xaas am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne te ngeen dund ci fàggu waaye nag dañ bale xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku ngeen am.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 lii waraqa bi ma lii ak axtaaba mu doon xasida goo xam ne wala nga ne daanaka moo xasida gu ñu génnee nii te mooy xasida mat fu nabiyal muntaxaa nuru asmaana matuñ xasida ndax sëñ Tuubaa li muy tuddee xasida mooy fukki bayit ak juróom-ñaar kon xasida gi du mat xasida ay ay abyaat lañ koy tuddee lu demee ne lam yëpp du gis nga ba muy daaneel matu xasida moo tax mu ne na nga def abyaat yii mu mel ni jaamu yàlla ku jaamu yàlla at tañu nangu ko kon xasida gi defe naa ne du bëri waaw moom it six bayit la bu dee gis nga bee ñi génne muy mat dab yël taxa moom it douze bayit la kon bee douze bayit la bii six bayit la loolu itam ay secret yu bari bari la sëriñ bi tënkee ko albaax yi nag turu suñu borom la mooy tur yi nga xam ne bu fi ñëpp bayee ko moo fi des wa yebbu xaawa ca ko solo jalaale wal ikraam moom la ko tënkee alif gi lay jël jël laam gi jël baa gi jël geneen alif gi jël xaaf gi jëf jël yaa gi moom lay mujjee sëriñ bi tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim mu ne bismillahi maa ngi tàmbalee sama xasida gi ci tur yàlla arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna arrahimi buur bay aj yëram ku ko soob ci àllaaxira kon tàmbale na turu yàlla ngir sàmmanteeg digleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir waaye nag ay njëriñ yu nekk ci biir turu sunu borom bii nga xam ne mooy bismillahi rahmaani rahim yàlla mi nga xam ne mooy xéewalee xéewalu dijj yi ak xéewali sew yépp ba ñi nga xam ne ñoo koy weddi ak ñi ko gëm ñëpp ci yam ñëpp lay xéewale fii ci àdduna waaye mooy ñi nga xam ne mooy leen ñi ko doon jaam fii ca kaw suuf bu yemal xamee tàbbaleen ci tudd arrahim moo tax benn bu nekk ci makkaan la xaj bu dee rahman ci àdduna la xaj bu dee rahim yowmal xiyam rek la xaj léegi nag yi moom turu yàlla la mooy mooy tekki aji des ji yàlla mu fay des ba faw loolu itam yeneen mbir la waaye itam sëriñ bi bi mee taalif xasida gii gi ajaaba xeeru xëyru baaxin dafa am lu mu doon yóotu sunu borom ci ay maqaama yoo xam ne sunu borom yéegal ko ca waaye jox ko ay xéewal yoo xam ne amut ko woon léegi da koo ñaan yàlla sunu borom xamal ko na ko nangul naa la ko loolu moo waral ajaaba wuyul na ma sunu borom xamal na ko euh, nangul naa la ko waaye dafa xamalaale suñu borom yittag na ko dafa ñaan suñu borom na ko yow yàlla de maa ngi lay ñaan mboolem gaay yàlla yi bu yi ka ca gën a mag ñoom ñépp mboolem ka ca gën a mag ka ca jiitu maqaama mun toll nag ma ko womatal ma yegg fa waaye nag xéewal yi mu am yépp ba tax mu yegg ca maqaama yooyee naa am xéewal yooyu yàlla na ko nangul naa la ko mu ne waaw maa ngi la beneen mooy ñoom xutbu yooyee la leen tax a yéeg ca maqaama yooyee am na ay may yañ du yuutu ca maqaama yooyee te mënuñ cey jot léegi damaa bëgg may yooyu yëpp nga delloosil ma ko jox ma ko ma yoo xam ne dañ ko xime moon te mënuñ koo am léegi damaa bëgg ma yoon nga joxaale ma ko ba nga ma joxe yoo xam ne dafa nekkoon seen loxo ba noppi yàlla na ko waaw kay jox naa la ko nangul naa la ko léegi mu ne ko waaw beneen ñaan léegi damaa bëgg man Serigne tubaa koo xam ne ak xorom daf maa bañ wala mu kañaanee ma ñaar ñi buñ dugg aljana mukk yàlla na ko nangul naa la ko xasida gi lay jàngale yàlla na ko nangul naa la ko koo xam ne bëggul la yow Serigne Touba safara la jëm waaye koo xam ne buñ xoolee xolom bi tuuti fekk ci bëgg sëñ Touba wala am mbégte ci sëñ Touba képp képp képp may naa la mu tàbbi aljana te loolu sëñ Touba bi bind na ko boppam moo tax mu ne ajaabani nangul na ma sama ñaan yi ajaabani <laughs> kan mu ne xayru baax yi ngën ci aji des ji te mooy yàlla ngën ci aji des ji xattaaba moom yàlla dëgg teeyal fii ci moom kulli sama lépp maanaam yàlla ca moom la teeyalee sama lépp xam nga jàngoon ngeen ci xasiida gu tudd a munaajaati waxoon na leen ne yàlla ca desam nga la ma saxalee may def ndax ba euh, baqaa uman ab xaa uho abqaani xasaba man fii jaysisin alqaani nee na yàlla mi nga xam ne mooy aji sax ji di fi des ba faw mooy ki ma saxalal ca desam nga ma di fa sax ba faw noonu la jàppee képp koo xam ne daje woon naag man ci jaysisin ngir bëgg ma yóbbu ca géej ga yàlla ne la motoj motoj la nga dee waaw xasaba man fii jaysisin alqaani nee na yàlla dana mbugal képp ko daje woon a man ci jaysisin dana ko mbugal moom yàlla moo tax ma ne ajaaba ni wuyu na ma xayru baax ngën ci aji des te mooy yàlla muy nangul na ma samay ñaan yi xat xattaabaa moom dee teeyal na dëgg-dëgg teeyal fii ci moom kulli sama lépp man sama lépp dafa teey fa yàlla waaye yàlla moomee wa raqaa ma leen yéegee na ma baatab raqaa mooy yéeg raqaa raqa moo mooy kuy yéeg ku ñuy tarxee nga yéeg wa raqaa moom yàlla yéegee na ma moom yàlla xaada may na lii ñeel ma axtaabaa la nekkoon ci xutbu ya jëmmi xutbu ya ma ne leen yàlla jox na ma ko waaw kaada may na lii ñal ma bi ma ànd ak la nga xam ne joxoon na ko ak taba xutbu ya nun nga koy fidee danga naan waraqaa moom yàlla yéegal na ma ca xutbu ya te seen maqaamee fa ñu yem yéegal na ma fa waaye nag kaada may na lii ñeel ma bi ma ànd ak la nga xamee na axtaaba maanaam nekk na ca ñoom maanaam may yeleen yàlla may yàlla wommat na ko jox ma ko xam nga dalaa wax ne yàlla wuyul na ma sama ñaan yi yàlla mi nga xam ne mooy ngën ci aji def waaye sama lépp teey na fa moom teey ndax moo ko teeyal ba noppi na yàlla moo ma yéegal ca maqaamam xutbu ya waaye bi ma fa yéegalee maanaam daf maa yéegal ma yegg ci ñoom nga xam ne yegg naa ci gën a waaye nag daf maa jox lañ am yëpp moo tax ne war a xaa na ma moom yàlla xaaba woo mat na mooy may na lii ñeel ma bi maa ànd ak la nga xam ne axtaaba jox na ma xutbu ya bi maa ànd ak la nga xam ne axtaaba joxoon na ko xutbu ya maanaam yéegee ma ma yegg ci ñoom mu jox ma lañ amoon loolu mooy firi rek mu ne li wax ci baqin maha qasdal ma bii xelana faaraxtuhu wax wa kax wal am lu ma xaaba nee na moom yàlla maha farna qasdal ma bii jublug la nga xamee ne jaayante woon naa ko ak moom lanaa ñem yàlla na ko loolu mooy lan mooy yàlla la ma ko joxoon marchandise ma duma ma delloo njëg dafa am nu mu jaayantoon sunu borom léegi loolee dafa jox yàlla marchandise ma yàlla jox ko njëgga a dootu ko jëlaat musamani xustu bi laa kasaani nee ne diirub jamono jot naa ci njëgga làq naa ko te sama marchandise bi du lamb ndax jaay naa ko yàlla te yàlla du xàcc moo tax ma ne far na moom yàlla xas dal ma bihe jublug la ma jaayante woon ak moom maanaam du jubluwaat ci man léegi yàlla far na ko foofu lay yemati lanaa ñeel nu faaraxtuhoo naa ak loolu nee na tàqalikoo naa ak man loolu tàkkalikoog naa ak moom maanaam man ca yàlla yàlla jox na ma njëgg marchandise mu man ca yàlla waxu wata loolee ma leen di wax sax de que mooy ñaar fukk ak juróom-ñett moom la jaayante yàlla bi muy dem ci géej gi ne du ko lekk mukk te lépp ay xeeti furuyel lu neex neex la bokkoon na ci rek mooy tubaab ya mboolem la nekkoon fa ñoom sëñ tubaab du ko jëfandikoo lu nekk ci tubaab yi rek sëñ tubaab du ko jëfandikoo seen kafe ga seen gerte ga seen tooli sardin ya am na wax nañ ne dañ dañ ko doon seet xool ba xam xol bi fu mu toll ci yàlla ñi xiifal ko jàpp ne foog foog jàpp ne sëñ bi xiif la te sëñ bi moom ci alxuraan lay naanee lay lekkee laa ara samhan aw jaarihan yéena gisuma genn mar wala genn xiif siwa quraan lu dul alxuraan mooy sama naan waay mooy sama mar waay mooy sama xiif waay léegi nag tubaab yi biñ ko dugalee ci benn toolof sarde bu sëq jàpp ne sëñ bi day lekk sëñ bi dëdd ko ñu xam ne kii dara adduna ñor ko ndax dafa jaayantoon yàlla maanaam buy dox nii di xesen wala muy onk wala muy xool asamaan wala muy lekk seen alal wala muy nooy nooyal kàddoom jëm ci ñoom nga xam ne sëñ bi da koo defoon ngir jaamoo ci yàlla ngir dog bànneexam waaye yàlla xaraamul ko ci moom moom da koo defoon ngir di jaamu yàlla te yooyu yëpp bi mu dellu ci ci atum alsafin wax na ne suñu borom jox na ko yooyu yëpp yam yi nga xam ne da ko jaayantoon suñu borom léegi suñ borom jox joxaan na ko yëpp mboolem yi dagay ni suñu borom jox na ko moo tax mu ne wax wa loole këx la këx léeg-léeg mu ne laj laj mooy fanweer ak njatt mooy diir diir bi nga xam ne moom la génn dem ci tukki ba ba bañ koy gëj gis waaw ba atum ba bañ koy ba muy làqu ci njaar ñu yóbbu ko Tuubaa diiru fanweeri at la ak ñett la mu tolloog jëm ñi laj bu dee kaan ak moo tollee arafi Tuubaa yi ñaar ak juróom-ñett moo tax ne wax wa loolee nga xam ne yàlla far na ko ci man te teqalikoog naa ak moom yàlla jox na ma njëgg jël na marchandise ma nee na leen wal am wal am lu sama yaakaar sëñ Tuubaa nee na maa xaabaa du sooy mukk <laughs> du ma yaakaar ci yàlla de du làmbatu de du ma yaakaar muy sooy mukk sëñ Tuubaa du ma yaakaar muy sooy li wàcc ci baatin ngir jëm yàlla mi aji des nag li wàcc ci baatin ngir jëm yàlla mi nga xam ne mooy aji des lépp dama koo jaayantu woon ngir jëmmi sunu borom tabaaraka wa taala euh, moom mi nga xam ne mooy aji des moo tax mu ne maa far na moom yàlla xas dal ma bihi jublug la nga xamee ne jaayantoo naka ak moom yàlla far na ko lanaa ñeel nu faaraxtoo tàqalikoo na ak moom sax te wax wa lool de këx mooy këx mooy ñaar fukk juróom am lu te sama yaakaar maa xaaba du sooy dama ko def nag li ci baax ngir jëm yàlla miy aji def képp laa ko def nag dama ko jaayante ngir jëm yàlla képp waaye yàlla dem na ma ba jox ma njëgga ma jox ko marchandise ma léegi amatu fàcc ci yàlla mu ne dixtu jaay naa àll laa la nga xam ne loolu nag firé mag la àll si mag ñooy firé àll si laala àll la nga xam ne <laughs> naa ne ñu ñu bari moom loolu lañ mën a mën a mën a déglu àll la nga xam ne waaye dixtu jaay naa àll si la nga xam ne lay sa yan xooni du mu jubluwaat mukk mukk mukk mukk mooy marchandise moom ma leen di wax jox na ko yàlla yàlla jox na ko njëgg moom lay feddliwaat ne jox naa ko yàlla moom marchandise ma jox na ma njëgg te kenn dootu ci xacc ndax waqaaniyal baqi bii su góoraa tijaarati la dahi lan tëgóoraa bixtu lati ladan nasara tura loxoo bi ma bi loxoo laahi multara nga xam ne wax na ko ci ay barab yu bëri moo taxoon bixtu jaay naa alati laala nga xam ne lay sa yoon woon du mu jubluwaat mukk jaay naa ko yàlla du mu jubluwaat waaye waaye moom yàlla wa badda lii mooy wetteel na ma ko lii ñeel ma maanaam bi mu ko ko jaayee daf ma ko wetteel daf ma jox leneen lu gën li ma ko jox mooy pay gi ko sunu borom jox te pay goog waa asamaan ak suuf ñëpp xaj nañ ci tëdu jeex pay goog ba léegi sunu borom nee na mu ko koy fay wax na ci bare yu bëri ne borom ba léegi ko koy fay gis nga wakkaanaa xam di sa wax na la ne askuruhu wa qaabilil ibbu daala sant naa yàlla ndax wommata na ma lu wettee la ma jaayantoon ak moom moo tax ma ne wa badda wa baddali te wetteel na moom yàlla li ñeel ma maanaam la ma la ma ko jaayoon marchandise ma ma ko jox léegi daf ma ko witte leneen lu gën la ma ko jox boo yëpp li doo te dana ko saxal dàkk lii ñeel ma maanaam du ko jëlaat kenn du xaj ci day sax dàkk ci man ki def loolu nag man mooy yàlla mi nga xam ne kabba jéng na saqaabaa sama saytaane saqaabaa samay noonu yëpp baatab saqaabaa nag mooy fiiri maanaam loo xam ne dafa dem ba soox nga xam ne nekkatu fi waaye baat bi dañ koy def lu ñëw istixaara dañ koy abbu tey bu la neex nga firee ko saytaane bu la neex nga firee ko saytaane ak i bokkam nga xam ne mën nga koo firee firi yu bëri bëri dafa bokk ci baati arab yi gën a neex nga xam ne tey mën nga koo loo gis mu bon rek wala muy lore rek te te mu doon jéem a bi mën nga koo firee saxaaba gi waaw maanaam yàlla jéng na sama saytaane saytaane léegi mënut ci man dara mënut maa yàqal waaw tabarkal moo tax na biitu jaay naa àll ci la nga xam ne laysa yan xooni du ma jublu mukk te wabaddali wettel na ma lii ñeel ma la ma ko jaay waaye nag wa yuqali doo dana ko beelal ci man saxal ko dàkk lii ñeel ma ci def lool man moo yàlla mi nga xam ne kabba jéng na mooy ràpp na jéng na sa xaabaat sama saytaane amatuma saytaane ilaa siwaayal xeda tanhu bi ma maahu wa bi yusafi ilahi dahra albaba sëriñ Tuubaa ne tanhoo dana jublu ilaa si waaye jëm ci kudut man man ahmadul xadim duñ ma jege de lan alxedaa noon yi bi maa maahum ak ña ñu ànd ak kon gis nga seytaane lay wax de ak ay mbokkam saqaabaa ji seytaane lay wax ak ay mbokkam moo tax mu ne tanhu dana jublu ilaa si waaye jëm ci kudut ñun kudut man alxedaa noon yi bi maahum ak seen njaboot ñëpp ña ñu ànd ak ñëpp tabarkal ay yàqkat lañ de fuñ jëm yàq rek yàlla ñu yàlla musal ci ñoom nu mu musalee sëñ Tuubaa waaye nag najeyta man taaloxoo biya waaw mi ne sayaatine fa sukkuri yasmaha waaw cey nañ fexe dëggal wax jooju sëñ Tuubaa di wax ne yow yàlla de musal nga képp koo aju ci man ci sayaatinal insi ak jinn seytaane sunu borom dàq na ko mu génn kër sëñ Tuubaa mu ngi ca ñalloo léegi nag boo demee ca ñalloo yaa ko fekk waaye biir kër sëñ Tuubaa mu seytaane amut fu wàll moo tax mu ne seytaane moom ak i ay mbokkam noonu yëpp ak njabootu seytaane yëpp danuñu daw jëm ci ku dul man tanhu dana jublu ilaa waaye jëm ci ku dul man alexee noon yi yëpp nga xam waxee noon yi moom mboolem ñi nga xam ne ni ñooy tubaab bi ko yóbboon ci géej ga waaye nag bi maamaahum ak lañ ak ñi ñu ànd ak ñëpp te yàlla woyu sa dana sellal wala nga ne woyu sa dana sellalee moom yàlla bii ci sama jëmm ji ilaahi sama borom a addëxra diirug jamono albaaba borom xel yi borom xel yi maanaam yàlla mi ngi leen di sellalee seen xel yi ci sama jëmm ji xam nga albaaba sëriñ bi da koo def piiral mooy lu ñuy wax jam boo ne albaab mooy jam boo ne lub bi mooy benn mooy benn borom xel boo ne albaaba nag mooy jamxo bi mooy piiral bi <laughs> nee yàlla ci jëm bopp borom xel yi diiru jamono maanaam ci man la leen di sellalee wuyusi bi dana sellalee bii ci sama jëmm ji illaahi son borom addëxra diiru jamono albaaba borom xel yi léegi nag mu bàyyi wax jooju léegi nag ñëw ci ki nga xam ne moom da koo bañ fan lay mujjee ak moom ak fan lay jëm fan lay dugg yàlla nañ ci yàlla musal